voilà mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi dellu di leen nuyu yéen ñii seetaan fii ci réew mi ak ci bitim réew waa jasporaa bi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax euh, tey suñu invité euh, du jour euh, borom yàllay kese Serigne Moustapha Dramé fi moom këram la yéen tamit tàmm ngeen ko di ko seetaan ci Sénégal gannaaw bu ñu ko nuyoo ba noppi dañ koy bàyyi moom itam mu nuyu ñi nga xam ñoo ñuy seetaan ci Sénégal sëñ Moustapha borom yàllay kese. ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi. waaw salaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu aleyna wa aleykum wa ala jami al muslim yabduna wa rahmatu wa lutfu bi jaay sama sallam ñu ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa adduna di ñaan ñëpp jàmm yi ñaan ñëpp mucc ak mucc le ñaan suma subhanahu wa taala foo ma nekk rek yéen defal la jàmm xewal sutura mucc ak mucc le réew mii di suñu gaal ñu ñaan suma subhanahu wa yal na yàlla tappa xol yi. ba lépp lu mu wàcce suñ kaw ci réew mi rek ñu mën ko muñ jaajëf jaajëf sëñ Moustapha Dramé euh, nekkoon na suñu gan fan yële ñu génn mm-hmm. euh, ba ñu waxoon ci li nga xam moom mooy crise politique bi mm-hmm. ak réew mi tolluwaay bi am na loo xam ni waxoon nañu ko lan ñu waxoon muy manifestation yi ñu génn mm-hmm. rawatina bii passé am na ñu ci ñàkk seen bakkan yàlla na leen yàlla yërëm ñu ngi jaale seen njaboot yëpp di ko jaale Sénégal yëpp yàlla na fi gëj waxoon nga ko am na lu bëri loo xam ne waxoon nga ko euh, internautes yi suivre nañ ko ci Sénégal buñ demaatee di ngeen ko gisaat euh, muy ndaw yu bëri yoo xam ne ñàkk seen bakkan te crise bi dina gën a jolli dina gën a doy alors tey lan ngay waxaat gannaaw bi nga xamante ni mujj nañ ci manifestation am ñi ñàkk seen bakkan sëñ Moustapha Dramé borom yàllay kese lan nga ñuy dénk lan ngay dénk sénégalais gannaaw bi nga observé li nga xam ne moo xew mooy ñu sant yàlla rek hmm. te jaamu ji yàlla réew mi dangay gis nit ku am xam-xam lool waaye bi wax nga yëg ne manque-manque yu bari mu koy wax ci ay waxam ñàkk dellu ci yàlla ñàkk a jaamu yàlla la ndax ñàkk a jaamu yàlla day feeñ ci xol feeñ ci kanam doo ko feeñ ci kàllaama bu fekkee doo jaamu yàlla naqar wu yàlla mën a teg sa kaw doo mën a muñ xam nga li am ni yëpp tey ci réew mi waral coow yàlla wax nañu ko yàlla noonu nañu bu ngeen demee ba jamono njaalu mi bari lekk lu xaram bari lekk riba bari nger bari cim réew danga leen nattoo ab njit goo xam ne na muy def mooy di leen dundee ndax finna woowu noonu mooy mbugal bu bu ngeen di préparé laata ngeen a daj ak man léegi fi nu woon bu ñëwee ñun Sénégal yëpp ooy ñu dellu ci suñu bopp xool suñu bopp kenn ku ne xool ci sa bopp mais duñ ko def dañ ko jël delloo ko buur bi mooy le président de la si boobaa nag ñun ñoo war a xam ne ñun la yàlla di fay parce que ñoo ko lebal loo xam ne bokkut ak lim ñu dëggal te xalaa ku yaale mu fay ñu ko loolu waral coow li benn bat laa wax ñu mooy nañu dellu ci yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala ñaan yàlla mu tappe xol yi xol yi nag leen rek mën a tax muñ mën fi bëri mooy ñu dellu ci yàlla di ci astaghfirullah bismillahi rahmaani rahim la ilaha illallah yàgg na waxoon naa la fii ne la politiciens yu bare bari bari bari fii dañu am benn feebar muy jaamu yàlla seen jaamu yàlla mooy yées seen jaamu yàlla moo yées maanaam seen yàlla moo yées maanaam mhm. politiciens yu bare bari bu ñuy wax mhm. da nga gis ne sax ñoom est-ce que waxtu julli juróom yi ñu ngi koy respecté ñu koy respecté mhm. parce que nit du jaamu yàlla mukk respecté waxtu julli juróom yi comportement benn bi di nekk ci moom wala benn waxam bi mu koy def. Mm-hmm. bu nee ba rey gi bëri. Mm-hmm. parce que dañu fàtte yàlla. waaw fàtte alxuraan. Mm-hmm. fàtte li ñu yénti yàlla ma salaam salaam bàyyi dem. loolu ne bu ñu ko fàttee kenn du dootu jombati dara. ñaawte fu mën a am. kenn du ci am kersa. dootoo xalaat yàlla. réew mi seetloo benn affaire. saaga ndey. amatul kers tuumaale ab gor. bu am ay jabar am ay doom. léegi kenn ko. loolu lépp nag li ko waral mooy lenn képp la mooy ñàkk dellu ci yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala jullit yi xam ne ñoom ñoom ñëpp ay mbokk lañu évers yi ñu fi nekk te duñ jullit ak ñun ñu jullit ñu xam ne ay nawle lañ bokk dëkk buñ dëkkee on sait jamais lu ne mën naa yàlla xam loolu nag bu ko aw jullit xamul ci ab dëkk dafa indi catastrophe yi am ci réew mi nii lii mooy problème alors crise politique bi fi mu nekk nii coow li bëri na Macky Sall Sonko am indil defante gi metti manifestation yi mu ngi kon ne di law xale yaa ngi ñàkk seeni bakkan saa yu manifestation amee lan nga ciy wax lan ngay wax waaye politique yi lan ngay wax ndaw ñi dama bokk ci ñoo xam ne mhm. man duma toog ci émission mhm. ne damay wax lu neex état mhm. pour mu ooma jox ma teraanga bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy toog def émission di wax lu neex Ousmane Sonko. Mm. wala beneen opposant mm. pour bu ëllëgee bu faloo mu am lu ñu xaar si ñoom. Mm. lépp lu yàlla di may ab gor. ab julit mën naa ne may na ma ko. te jógewu ci politicien. kon su ma demee man ba bëgg a génnee jaay suma ngor am fenn fu ma far. kon man dama gëmatut yàlla. te te boo demee ci ma min daabatin fil ardi da nga fekk yàlla sama sama di wax ne. xorondong bi nekk Kër Mor Sodi suma village. wala ba nekk Ziguinchor. yàlla ne ne bu añ jotee mu jokk mu añ bu dee jotee mu jokk mu reer bu guddi jotee mu bàyyi ko mu dugg bii néegam tëdd kon assuma ab doomu aadama lii boo xam ne du am problème comme naa fi ne mm-hmm. wax joo xam ne neexut mm-hmm. te du mos neex noonu naa la politiciens yi mm-hmm. ay bukki lañu ñun askan wi ñu ñooy bëy yi waxoon naa ko fii de waaw loolu moom te képp ku mos a xam ne waxoon naa ko loolu li ko firndeel manifestation baa ngi am ay jeunes ñoo ñàkk seen bakkan ban politicien nga gi mu ñàkk bakkanam. wala mbokk politicien amul du ñàkk seen bakkan mhm. li ma gën a yéem ci àdduna. Mhm. dañoo arrêté sama rakk man yow bokkat man naa ne mhm. samay doomu bàyyi. seen drame actuellement nii caravane yi ci manifestation bi. ci manifestation bi. actuellement nii ñu ngi rëbës suñu doon leen ñu place ci la su mën a dëpp. say mbokk. samay rakk sama doomu bàyyi say rakk ku tudd. ak xigu daraame. Mhm. kon xam nga kooku ak ku tudd moo déggee ko xam ne sama jarbaal la. si manifestation lañ leen jàppee. bii passé vendredi. d'accord xam nga su ma tàggoon duñ dem. Mhm. xale bu ñuy yëg doo ko yëg waaye bu ñu daanoo nga yëg ko. bu ñu daanoo ñëpp yëg ko loolu ma dal ci <laughs> loolu la mag yi doon wax de waaw. Ba <laughs> euh, mhm. Maguette ma wax la benn affaire. waaw. dañoo jàpp sama rak ak ñeneen i jeunes yu ñuy jàpp ci politique bi yëbbu leen kaso. ñu jàpp Déthié Fall. yëbbu ko section de recherche. dugal ko ci benn salle boo xam ne climatiseur la. Hmm. waxuma ko xef salle moo ko wax barki démb. Hmm. démb hmm. léegi jeunes yi nga xam ne ñooy béy mooy ñun jeunes yi nga xam ne ñooy béy. ñu dugal ñu ngeen di béy ca kaso ga. ca tout le monde ñu 200 personnes ci benn sàmm. dañ ne nii sàmm dugal leen. ñoom ñu boole leen dugal leen ci ne bu am climatiseur. les jeunes. waaw doo xool section rase ngeen amagum. yemu leen. bu nekkee tamit rëbës nii la yéen 250 personnes yi ne bokk benn sàmbur ñoom ñu bokk benn nekk nekk benn néeg kenn ku ne benn sàmbur am clim am télé bu amul am téléphone. Hmm. am lal la lu baax yéen am lal hmm. damay wax ci cadre bépp waajur woo xam ne am nga doom yow sa doom hmm. buñ ñu jaawalee ñaar bëgg sa réew ak défendre sa intere dañ dul bëgg niroo nag ñiy défendre seen intérêt. pour ñu mën koo réussir dañuy làqatu ci gannaaw défendre seenu pays mm-hmm. ki défendre intérêt ci politicien mm-hmm. muy pouvoir opposant ñépp dañuy convaincre xale yi ne leen ñu réew ma ñu ñor waaye ci loolu dañuy dañuy laqatu ci intérêt sentiment gu xale yi bëgg la ko ne la mm-hmm. tous les jeunes maa leen di conseillé na leen nañu delloo seen xel ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala mais est-ce que jeunes yooyu noonu ànd nañoo ak seen sago. ñëwaguma sax ci responsable politique yi. mais est-ce que jeunes yooyu ñëw ànd nañu ak seen sago. ànd nañu ak seen sago parce que booy xool dafay mel ni ànduñu ak seen sago. xam nga dafa am benn affaire bu mu seetlu. waaw boo gisee politiciens yépp laa wax. Hmm. man Moustapha Dramé yàgg naa la wax ne la. Hmm. amul benn politicien boo xam ne gëm naa la. Hmm. man maa ko wax. am naa ki droit comme ñoom ni ma ñàkk gëmee rek. <laughs> xam nga damaa la ko. dañoo xëy le vendredi. waa bip dem taxaw buntu Ousmane Sonko. nekk doo manifester te avant ba bip di def loolu bàyyi nañ ko muy communiquer pendant une semaine pour convaincre xale yi pour ñu ci mbedd bi ba vendredi jot yow bàyyi nga ko mu def communication ba mu jàll. te kenn ku ne xam na ne àdduna bi communication léegi moo fi moo fi lépp. vendredi jot yow nga yëbbu dib wàcc nga wàccee escadron lëmm buntu kam ne ko doo génn. léegi nag jeunes yi jeunes yi nga xam ne tey ñoo war a génn yow léegi état ñooñu concerné wu leen wàcce six mille policiers ak gendarme pour ñu jaamaarloo jeunes yi. ku génne nga doog na mais pourtant bakkanu Ousmane Sonko bi ak bakkanu jeune bi dee Ziguinchor. ci la même sos ñoo yem. waaye léegi stratégie bi état yor ba nu Sonko doo génne sa buntu kër dèjà ñoom xamuñu ne sax ñu ngi koy may kaaraange. ñu ngi koy may lay bu ñu bàyyiwoon ba mu génn. ñu bàyyi ko ba mu sori ñu dur gànnaale camisane. air bi dugg ko. ñu jàpp ko yëpp bu lan demee ñu bàyyi ko mu ñibbi loolu sax moo tane woon teg buntu këram ne ko doo génn amaana tamit nag mu nekk beneen charge bëgg jàmm état gis ne naa def jàmm ak salaam bu génnoon xale yu topp bu génnee xale topp ko duñ ko mën a contrôler mm. ñu neñ def stratégie bi mm, mm, waaye dama ne li ma gën a métti ci àdduna ñu jàpp deux cent cinquante personnes démb waa yeewu askan bi ñu def conférence de presse ñett lañ tudd man plus quatrième dem naa fa nekk fa ak ay nit ñoo xam ne ñoom seeni rakk ak seeni doom lañ jàpp nga gis maire boo xam ne dafa taxaw di jooy ndax doom bi ñu war a yóbbu tribunal démb xamul fu ñu jëmee te moom la yaakaar ci ci maanaam xaru gi léegi benn affaire am na est-ce que xam nga ne xale boobu tey innocent la mooy wax les juges ak le procureurs nañu bàyyi xel suñu rakk yi nga xam ne ay innocent la ñu ay politique la ay nit communication la ay nit réussir ba génne leen ci mbedd bi. dafa mel ni dañu nekk ay ndaw yoo xam ne dañu leen di sacrifier. ay ndaw lañu ay ndaw lañu yoo xam ne mu ñoom ñooy bëy yi. les politiciens ñooy hmm. ah, bukki. te gis nga mystique. Hmm. képp ku gëm ni amul. Hmm. da ngaa daje gudd mystique. mystique lu am la. imagine nit ku taxaw ne jam ma bal ne policier jam ma bal. te ñaata seen ñoo taxaw ne bis bu ñu bëggee arrêté benn. leader politique jaral na leen sacrifier seen bakkan waaye jeune boobu noonu jamono bi mu koy wax xalaatut ne bàyyi ma ngi fi hmm. yaay ma ngi fi hmm. xalaatut ne ñi jàpp actuellement ñu ba leen kaso hmm. ñu ngi dund situation yi métti métti métti métti te kenn du leen fekk di leen fi génnee xalaatuñu parce que jamono boobu du ñu nit moo tax politiciens yi du ñu ñu nitu kese ku leen topp nag nekk nitu kese lépp luy conséquence ci sa kaw léegi moo jox benn ad hoc Sonko li ma gën a métti si Ousmane Sonko jàpp benn parti politique muy au pouvoir di leen di leen di comme comme kër ay xale. ne ma lu tax xam nga président Macky Sall lan la manqué ay nit ñu ko jàppale ci réew mi la manqué ay nit ñoo xam ne bu Ousmane Sonko defee dara au lieu ñu riposter avec intellectuel intelligence mais dañuy riposter avec xol bu naqat yi Sonko santas na leen réussir na juróom fexe na ba boole jeunes yi ak son excellence président Macky Sall ba jeunes yëpp suur nañu Macky Sall effectivement benn jeune dootul bëggati Macky Sall xam lu mu leen wax Macky Sall jaay na seen suuf si jaay na seen seen gaz jaay na seen suuf si jaay seen géej gi jox ko tubaab yi ñuy napp di yóbbu seen réew léegi yéen jeunes yi da mujj torox waaye léegi boo ko waxee jeune boo xam ne mu ngi jàng ba noppi toog war a xaar yàlla amagul dara dana kii wax dëgg la léegi ñoom bi Macky Sall bi Sonko régiré loolu au ñu teg stratégie ñoom luy dindi loolu ci bopp xale yi mais dañ ko topp ci dañ ko attaqué ñoom xol ba jëm ñu dindi li ci xolu xale yi bëgg ko dindee doole te doole du réussir. nel benn ñaareel bi toujours communication son excellence kii euh, président Ousmane Sonko da ngay gis ne dafay ay ay maanaam jukko politique xam nga politique. day wax day wax juróom-ñeent day wax juróomi baat yoo xam ne dëgg la mm-hmm. yokk ci juróomi baat yoo xam ne ay sos la pour boole la population bi mm-hmm. ñoom nag bu ko defee loolu ooy ñoom it ñu am intelligente la ñu koy waxee mm-hmm. pour jëm ko dindi ca xel mais dañ ko bëgg a tontu ak doole man soo bokkoon APR Ousmane Sonko bu génn rek sorti du ma génn daaw bàyyi mu génn trois sorties ma génne benn sortie parce que man responsable laa am na lu ñu xaar ci man bu amee lu mu bopp xale yi dama ko war dama ko war a calculer mais du ko du ma ko tontoo xol nel benn bi ñu xëyee vendredi wàccee centre policier buntu ko man Sonko képp ku nekk APR yaa ngi kontaan Sonko xam na ne ñii lu ma naqat la ñuy wër mu jaay mu dox seen sim science dox ko ci mboolem bëtu Sénégalais yi xam nga la wax ñëw ñëw ne policier yi maam incarné jàmm ak salaam ñoo waxtaan ak ñoom gars ne ko doo génn mu départ dem toog mu ne may leen sama doom ak sama jabar ñu génn dem dox seen soxla nga d'accord waaye léegi loolu Moussa Mountakha Mbacké bu ko seetaanee lan lay wax kii daa bëgg jàmm képp ku ko seetaanee kii nitu jàmm la jumaa jot yàlla wax ci alquran ne bañ wàcceel ko laay lëmu ne pour julli jotati muy ajjuma lépp lu ngeen jàpp na ngeen ko baax jaay ci diggante boobu dafa xaraam jaay ci jaay ci waxtu jumaa dafa xaraam léegi mu solu ba jekk moom xamoon na ne bu dikkee du jàll waaye pour mu boole ko ak kilifa diine yi nun def ñëw bekk si na leen ah dama bëgg a julli gaa yi ko doo julli ji hmm. waaye képp ku ko ci daan di imam di sëriñ daara comprendre lay wax hmm. Macky Sall moo yées moo iñaan ngay wax hmm. piège yooyu noonu ay détails yoo xam ne day yàq loo xam ne ba ilaa yawmal qiyaamati ñoom du ñu mën a lu luñ ko mën a dindi alors mais fa mu wax la waaw mu tekki ne leen ne ne ne adjudant bi adjudant la. Hmm. mooy ñaari policiers yi. pour mu wax Ousmane Sonko rek. Hmm. bu mu jógee Sonko ñëw ci conseil président ma Sall. Hmm. dama lay wax kenn ku ne say faa. erreur yi ñuy def. di boole population bi te nit ñi bu ñu ñëw war a dugg ci problème boobu noonu. Ousmane Sonko dafa jaroo adjudant bi bip élément bip bi. dafa jàpp adjudant bi ne ko xamee naa la de kooku du capitaine du commissaire adjudant la. ne ko yow xamee naa la de day ngeen dajeeti effectivement xamee ne kooku ki ci da ko xool ne ko. sëñ Abdou xam ko woon ko nu tudd. Hmm. Babacar la tudd. policier boobu comme la mun a Abdou tudd Abdou de mu ngi tudd Babacar. Hmm. maam moom ñoo ànd dugg benn bis Dakar Bango ñu bokk même contestant bokk même formation. Hmm. ñu génn mu dem corps ba muy dem mu libéré dem defi concours police armée policier tudd Babacar. mën naa wax santam mais pour mu jouer les jeux. woon ñëpp ni la man dara déranger ma. ne ko waa sëñ Abdou léegi yow xel yi ko saan yëpp dañ naan mais Sonko xam na gars yi de mais xamul gars yi hmm. mais day joué les sa parce que politicien la hmm. yooyu pays yëpp nag état mu ngi ci daanu hmm. te waruñ ko ci waruñ ci daanu seetloo ko noonu nag laa bëgg man jeunes yi ko xam ne politiciens yi ku ne la kaa xeexal suñu réew ba ñàkk ci sa bakkan dégg la réew jar na ko ndax yéen jàll moo salaam jàngal nañu ne jihaad ci yoonu yàlla képp ku ci faatu sa kër aljana la waaye est-ce que réew mi nga xam ne ku sàcc duñu la tëj duñ dagg sa loxo ku njaaloo duñu la dóor lépp luy atti jullit nii ñu ngi ko jëlee ci constitutionnel tubaab bi xatte wuñu ci charia est-ce que réew mi réewum jullit la bokk ci ñàkk sa bakkan ci jaxle ci yoonu yàlla lu jar a bàyyi xel la est-ce que loolu la bu ñu jógee foofu ñëw ci état kenn laa gis ne mu mën a régler situation Sénégal mooy suñu yaay Marème Faye Sall la mm-hmm. ndax man dama man gëm ne groupe mm-hmm. Marème Faye la mm-hmm. jamono ji mënooy sauver Sénégal mënoo maanaam mënoo sauver Sénégal naka la mën a sauver Sénégal man dama gëm ne góor gu mën a gis ñett jigéen yi ñoo ko bëgg ci àdduna doom sa doom ju jigéen ñu ne ak sa yaay ak sa yaay ñu ne ak sa rakk bu jigéen ñu ne ki ko ñeenteel mooy sa jabar xam ne gannaaw yàlla moo fuutu sa yaay nga xam ne badar du dara la leen yàlla di boole ëllëg bu jàmm amee ngeen bokk bànneexu bu fitna amee kenn lu ci ëppale waaye léegi politiciens yi am léegi ay noon lañu te Macky Sall ak président Ousmane Sonko du ñu ay opposant ak pouvoir ay noon lañu noon noon noonu nag mooy dañuy xeex nga jëkkuma dóor waaye man bis mu la jëkk dama ne rey léegi kenn ku ne xam na ne li tax APR di sonn ci lépp lu luwaa ñu koy préparé pour teg ko ci kër Masongo pour bu mu nekk président de la mooy xam nañu ne bis bu ko nekkee ñoom seen kër Rebeuss la xam nga xam nañu ko bu doon nag dañ ko xool bëtu opposant bàyyee ko xaqam ak yelleefam Sonko tamit respecté droit yi ñu tënk ci réew mi ñëpp enc boobaa ëllëg même bu fi Macky la jógee kenn ku fi nekk du ko topp ci lenn day waxtaan ak moom ci njëkk ak tiraat nga xam ne kii lu mu gàtt gàtt mos naa nekk son président de la République. léegi Marième loolu yàqu na Marième Faye Sall li mu ko mën a mooy. Mm-hmm. na waxtaan ak jëkkëram. Mm-hmm. xam ne ku dut moom. Mm-hmm. ku moom. gën ko bëgg son excellence président Macky Sall. te nguur nguur nguur yàlla dafay jeex te Abdoulaye Wade ba nguuru melee nii la jeexoon. Ouattara ba nguuru melee nii. la jeexoon. képp ku sa nguur mel nii jeex na. kon nga jàpp ne nguur moom mii. da nga jàpp ne nguur dama jàpp ne nguur dama dama jàpp ne nguur président Macky Sall gii. Hmm. ci jeex la jëm. Hmm. ndax li tax moo la ko. Hmm. moom lam lebaloon Abdoulaye Wade. juróom-ñeent at yàlla fekk ko. ba ci fukkeelu at bi yàlla doog ko may opposant mu Ousmane Sonko ne ko fitnaal ko. te du mañ ci dara. te ba ilaa yawmal xiyaamati heure bu jàppee Sonko fitna gi day gën a bari nga bàyyaat ko. parce que amaana. amaana yàlla moo keree Ousmane Sonko. pour def ko le meilleur opposant pour mu teg ko fitna teg ko naqar te du ci man dara parce que yàlla kat du mosuwaat ci régler situation dëkk bi te yàlla li gën a bon ci buur mooy bu lay folli ka nga yaakaaru kan nga ka nga gën a bañ mu wutu la la yàlla ngi mu ñëw ne ko kaay bëree yow ngeen bëree rek doo mos a daane waaye léegi nag hmm. lii ab na ëllëg bu fi kenn nekkee bëgg a jël njabootu Macky Sall tëj leen ci kaso gi kan mu ci gën a sonn Marième ñi ko topp ñëpp même ba ci le ministère de la République yi nga gis nii. Ah. bis bu Ousmane Sonko bis bu Macky Sall wàccee même ñoom ñooy bëgg trajet mat ñu wàcc nguur gu bees gi fi nekk. pour am dama tànk hmm. li ma la wax ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñu bokk ci nguur gi hmm. ñoo ma gën a xam. Hmm. waaw léegi nag moom moom suñu yaay Marième Faye Sall na wax président Macky Sall ne ko dëgg la Ousmane Sonko mii sénégalais la sànnawle la li yàlla la mu ci moom man xaw ma ko yow xamoo ko. te Abdoulaye Wade su pexem sottoon yow doo ko wuutu yow mi tamit bu sa pexe sottee maam Sonko du la wuutu waaye yàlla kenn la préparé xamoo ko xaw ma ko bëgg naa ñu rafetal nekkin gi pour ëllëg moo tax listam bii muy kaas ba mu jaral ko mu ñàkk bakkanam te Sonko na ko loolu benn bakkan nag ëpp na ñàkk ci réew te nga nekk président de République bu ëllëgee yàlla la koy laaj mm. te balaa yàlla ki fi ki fi wuutu da la ko topp mm. ma lay ñaan man en tant que sa soxna li ñuy di coow réew mi di coow suñuy doom suñu mor mi sët suñu doom mi sët di si ñàkk seen bakkan bàyyi ko mu sedd ndax gannaaw yàlla yow la yàlla jox degré boo xam ne léegi fi maa waxee yow nii su ma ko noonu lépp na jeex lépp jeex kon bu jeexul mën naa ne président sama Sall mu maanaam mu ma bëggul mu jeex kon dafa war a jeex nel benn ñi bokk APR laay wax tëj tëj foofu Ousmane Sonko daf leen a daf leen a manipuler xam nga ñoom ma gën a xam Sonko. maanaam daf leen di fooyee fooyee. Hmm. fooyee gi bokk na ci benn affaire mooy. Hmm. bu ñëwee toog de jënd yooyu Sonko lu mën a xew ci réew mi rek bu ñëwee du wax du wax ministre de la République du wax président de xam nga lay wax Macky Sall lay wax. léegi xam nga mën naa président Macky Sall mais Macky Sall lay wax parce que dafa bëgg toujours gars yi seen riposte yi du ànd ak intelligente nay ànd ak hmm. xam nga tey ku bokk APR nga ne ko Macky Sall. di ko saagalu. dèjà yaa ngi koy def lu naqari mu teg ci nag wax ci wax yoo xam ne tegginu dëpp wut ak ku yor suñu bànqaasu réew mi di njit ci réew mi yàlla jox ko ko nga koy wax léegi képp ku anam loolu ko naqari beneen bi mu am lu may wax ci président Ousmane Sonko mooy képp ku nekk président république bëgg nga ñu la na respecté son islam président Macky Sall man su ma doon moom du ma wax ci Macky Sall ndax ñëpp njortu nañu ne mën naa mu nekk président république nekk ëllëg ñu naan ko Ousmane Sonko te te droit nañu wax nangam lii di procureur lii di juge ñu jox leen seen wàccuwaay comme ñun jullit ñi ñun xattewuñu ci alquran xattewuñu ci njàngale mag ñi li ñu attewu mooy ñoom li ñu ne ne ñoom wàccuwaay bi leen yàlla jox na leen ko jox ndax bu ëllëgee moom sonko wala ku mu mën a doon bu fa yàlla tegee kam fee teg ñépp jox wàccuwaayam loolu am solo la xam naa ñaar ñaar la ñuy jeexalee parce que nekk nga woon ci benn dynamique boo xam ne bëgguma la woon dagg. Mm-hmm. parce que yaa ngi doon wax lu am solo te am na ay transition jóge nga fii dem nga fii jóge nga fii dem nga ci fee moo tax bëgguma woon dagg léegi ñaar lañuy jeexalee ci wàllu xam-xam lan nga gis ci réew mi ci wàllu xam gannaaw bi nga waxee si wàllu intellectuel ak tamit en tant que Moustapha rek waaye borom yàlla ay kese ci wàllu xam lan nga gis ci réew mi dana seet dam wala dina gën a tàng. fii laa toogoon. Mm. ne réew mi kenn mënu la wax a wax ba du tàkk. waaw yaa naa tàkk na. te noon naa la ba bakkanu jeunes yu bari dana ci ba nga ma ko waxee kay laa ne la bàyyi li ngay wax. boobu 3 mars boobu 3 mars ñëwagul de. waaw passé na fi bëli amaat. Mm. te li ma gis. Mm. mooy li ci kanam mooy gën a catastrophe. mooy gën a garaaw. ndax ñaar ñii. waaw Macky Sall. Mm. ngeen baal ma sax président Macky Sall. président Macky Sall. loo ma non Macky Sall sax ndax man ndax man Moustapha Dramé mi ah, rek. Ah. xam nga sëriñ laa. waaw ku ne rek ma mere la. dama bëgg nga yokk ci sëriñ gi. wala wala Moustapha Dramé teg ci yàlla kese gi. Ah. kon loolu. Mm-hmm. daf may neex man. Mm-hmm. ci ku toll ni jiitu réew. nga ne ko son excellence président Macky Sall. Mm-hmm. du nit kuy bàyyi. du bàyyi mukk mukk ci àdduna. du dellu ginnaaw du nit ko dellu ginnaaw. Ousmane Sonko mii yàlla na toog. du nit ki dellu ginnaaw. saa à xeex bi dina gën a tar. dina gën a tar Sonko même bu tëddee ci bàmmeel day xeex day xeex ak Macky Sall. Hmm? billaay wal kitaab bi te Macky Sall mënu ko te di gérer. Hmm. pouvoir bi yàlla jox Ousmane Sonko def ko premier opposant hmm. ne ko bàyyi xel nag ne bis bu fi jógee yàgg mboolem ko ilifoon da ngeen jaar ci kanam su suñu si leen. ci koo xam ne yaa doon kilifam dàq ko directeur impôt domaine spectacle bu ne mu sa ko yàlla def mu jéggi ko. Hmm. kon saa da nga bëgg wax ni réew mi dina gën dama bëgg wax ne réew mi des na ñaar yoo xam ne. Hmm. sax du bàttin. Hmm. logiquement xel nangu na ko. kooku war nga ko xam. Sonko dañu ko bàyyi. te dafa jël politique gu 1960. indiwaat ko jamono ji ñu toll. boo gisee bool yi mu tëgg. mais bool yi Ousmane Sonko génne na ñëpp nañ tëgg. mais loolu tëgg dafa aram. talaxal badr lañ daan wëri ina salam boo ndam la amoon jógee Medina di dem màkk ñu bari ki tëgg sax di ko xaw a rafetal sax fa lañ ko jëlee xaw ko rafetal waaye tëggam bànneexu ci bakkan wala tëggal tëgg moo xam ne da ngay da ciy jublu naqarat sa bokk jullit dafa araam kon tëgg mi dafa araam du mystique de dafa araam ndax ku ne xam ne tëgg mi amoon na Algérie amoon na France jamono hmm. même statistique boobu moom la président Ousmane ko indiwaat pour luy déranger. Hmm. lu naqadi président de la bi fi nekk. Hmm. léegi nag lii tëgg mii pour mu bañ a réussir stratégie la moom it. Hmm. xam nga tey benn affaire am na Macky bu xëyoon suba huit mu bàyyi ba guddi wala mu bàyyi ba vingt heures ci guddi ànd ak général Moussa Fall. ne ko nañu rëbës ma xooli xale yi mu bett ñëpp. dem rëbës dugg. sambur par sambur mu xool la bu xëyee xam nga décret bi mu njëkk jël mooy jël solution ci ci ci ci ci kaso yi. Mm-hmm. te gis nga ñi si kaso yi daanaka ñi si bëri ëppul leen. Mm-hmm. mu jël ci ñoom solution préparer leen ñu am liggéey gracier leen ñu amul problème yu rëy. Mm-hmm. ñu duggaat ci société bi. boobaa Sonko bu réussir doon quatre vingt dix pour cent président Macky Sall réseau na trente pour cent. mu des li des nan la ñuy def ba mu réussir waat lu bari le maximum. loolu ci benn stratégie la. waaye njëkk li Macky Sall war a def. pour jéem a dab lu bari bari na xëy un jour daaw na rëbës. surtout surtout bàyyi euh, dimbali dimbali jeunes yi. billahi bëtt ñëpp. Mm. bu fa jógee mu xool étudiants yi. Mm. gis nga dëkk bi dara doxul fii. Mm. saako ceeb vingt cinq mille. bi dina diwlin vingt trois mille. paquet Nescafé bi daan jël juróomi dërëm fukki dërëm la jar léegi. lu yaas li lépp léegi seet na léegi amatoo sax kuy jël appartement bu bees ndax trois mois koy son kenn amatul ko ci réew kon képp ku jóg ko Macky ne ko jarang moom ne ko réew maa ngi dox. waxoo ko dëgg. réew mi dara doxatul. jeunes yi yow mi seetaan. bokk APR bokk bokk ci Ousmane Sonko foo mën a bokk. ban jeune nga xam bu am liggéey démb wala ci abi passé bu bees. fonctionnaire amatul. kanaa booy dem armée ak booy gendarmerie te loolu armée dañ la koy wax ne la armée pour les pauvres la. ki dem ba bëgg a torox bañ torox amoo foo jëm nga ne xamul su waa si armée. sa bopp ñu nga bëgg di la fitnaal. di la fay salaire boo xam ne nii mënoo ca fay lu mm-hmm. armée pour loolu la. Mm-hmm. Macky Sall bu jógee Rebeuss. ñëw ci jeunes yi na dem na nekk université du taxaw wax mu jeex de day génne bés bu dëgër teg jox ministre bi ne ko exécuté ko mille mille jeunes nañu am liggéey léegi léegi léegi mu def ko deux mois trois mois mu defar leneen ci ay jeunes yi su fa jógee mu jàll ci mag ñi parce que jeunes yëpp seen yaay seen papa yi ñu ngi sonn doo dépasse képp koo xam ne jeune nga manifeste ñu jàpp la sa yaay génn na ci Macky Sall te pourtant moom comprendre lu sax ne man sama doom dañ ko dañ ko convaincre ci communication ba mu génn. lii nag mooy loo xam ne. lu ñu ñun ñëpp war a bàyyi xel la. beneen bi Ousmane Sonko. dëgg la ku bëgg réew manifestation mënuñu ñàkk xeex mënuñu ñàkk waaye nañu yaram xale yi. nit bu la bëggee Macky Sall mu ci boppam laa wax wax naa solution moom na ba lépp mu sedd. waaye nit Sonko tamit nit ñi bu ñu la bëggee jeunes yi bëgg la ku ne xam na ne jeunes yi dañu ko jox bopp. Hmm. ndigal la ñu xaar. nay nay sóoraale ne. ku sañoon ñoom ñëpp fekkee fekkee ko moom buy nekk président de la République. Mm-hmm. Mm-hmm. kenn ñàkk ba kanam. kenn mm-hmm. loolu la ko jóoraale. mu sensé moom stratégie bu muy def. ba réussir politique am ma nekk président de la République. ba kenn du ba kenn kenn loolu mën na nekk. loolu lu solo ci xel am solo la fi ñuy jeexalee mooy. fi ñuy jeexalee xam naa dañuy génn foofu yëpp dañuy amaat beneen jotaay incha allahu rabi xam naa fan yii rek. parce que yow man ak yow moom ay épisode la ay série la quoi <laughs> bii jeexee neen day ñëw mm. mais yàlla na am jàmm bii di ñëw mm. ba ñu wax ci leneen euh, mais li nga wax daal doy na waar comme nga ni moom dina gën a yëngu ñu bëri di dineen dee yàlla na si yàlla def saafara fu waaye ku mën a dem ba ba ca àll ba daal mm. yaa xam bopp xaj ngay wut yaa xam bopp tëll bopp dëmm yaa xam laaye daal fu waaye mën a nekk fexeel taxaw ma ba lépp luy musiba ak balaa moytu la. balaa dara ndax dund gi. Hmm. dafa neex. Hmm. te barsax ña fa dem. Hmm. ba léegi dikkuñ. te lañ fa nekkee kenn xamul. kenn fi may jeexale mooy mariage yi ñu gis fan yi star yi ñiy jouer théâtre wala boog ñuy wëy wala ñeneen ak ñeneen ñu dégg ay mariage yoo xam ne ay millions ay oto ay kenn xamul te yu ci bëri sax bu ñu marié ba une semaine wala un mois ñu dégg ne tas na dégg nañ fi benn bu tas fan yee ñu paase. Euh, lan ngay wax ci loolu. xam nga sharia. Hmm. yàlla lim ñu digal. tey ci sharia. can gi nga ten jigéen bu teg ko. wartu mat quinze mille francs wala ci layam bu ko ëppee teraanga ju bëri ji nga may jigéen ci yëpp bu xasee am teraanga ju bëri boo xasee may jigéen ci ci can sëy bu xasee am doo ko yërëm parce que da ngay jàpp ne man kii nii dañ ma koo jaay waaye mayuñu ma ko lu ñu la jaay nag moom doo ci am yërmande ni loo neex nga koy consommer kon bu ñu bëggee respecté jigéen ñi wala parents yi bëgg ñi ñu may seen doom ñu respecté leen lañ leen ko may heure boo góor gi tëddee néegam yëg nii man kii dañ ma ko may ndax kii aw ma njëgam ndax ñett na laa joxe ñu jox ma ko kii ko lu mu ko fonk naa ko xeeb waaye nag bu ñu jógee nag ci jaay mën a am alal nee na kenn ku nekk na nga jënd or bari may ay oto may ay kër sëy ko déggee yëpp du continuer te sëy dafa war a dalee ci baa siin jëm ci mara ba ni ko mën a ijji mën a fer mën a avancé mooy na dalee ci can gu néew yéen ñaar ngeen di jóg di daanu ba am kër am oto di àndi di voyage dem fu nekk bokk business lépp dox loolu nag can gu néew moo ko mën a maye parce que can bu néewee sëyu barke can su bëree sëy ba day bëri soyaatin kenn ku nekk da ci dugal loxoom day mel ni commerce la mbir mi lay commerce waaw léegi nag ak wut buzz léegi nag commerce hmm. la hmm. commerce nag moom ñaar ci nekk hmm. ñu jaay la lu baax ñu jaay la bon. <laughs> waaw bu ñu ko jaayee ne am nga droit delloo ji lu bon ku la ko jaay am nga droit delloo ji ko. yoon loolu wax. te nga ku la tiriyaande ci alalam jox la mm. lu bon. Mm. nga dem gis ne la ma joxoon du lii. Mm. boo demee delloo ji ko mu delloo sa xaalis nga dem su dox loolu mooy jigéen ñi. beneen bi sëpp mooy ne ñëpp delloo ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala bu ñu sëy ak plaisir ñu sëy pour doom. ku bëgg doom ju baax. utal ko yaay. yaay ju mu ëpp terrain buy jar cent million ndax yaay ju baax rek ngay am jabar ju baax rek ngay am dëkkal ko ci benn baraak sa sutur doo xawee ko lu mu am jox la loo am joxoo ko joxoo ko mu noppi kenn du ko la dara kon yaay ju baax nañ ko utal suñu doom bari na fi ko fi dégg muy tekki ba ci président de la République bi ne fi ku bëgg a xas looy wax yaayam mu woon Fatick nangam nangam parce que loolu ndax day war a ne moom yaay ju baax la ko bàyyi utal kon ñu ñëpp nañ bàyyi xel ci loolu utal suñu doom yaay ju baax yoo xam ne àll du tax matériel du sëy pour matériel boo amee rek ñëpp am jàmm jërëjëf euh, sëñ Moustapha Dramé waxtaan nañu ci wàllu politique tolluwaay bi waxtaan nañu ci wàllu xalaat intellectuellement ak li nga xam ne mooy wàllub euh, xalaatu doomu aadama rek koo xam ne du Moustapha Dramé ba ñuy gis ba ñuy xam ci wàllu xam-xam waaye mm. en tant que nit en tant que sénégalais moo prononcé wu wax naa ak ñaari kilifa yépp di Ousmane Sonko Macky Sall wax na xalaatam ci ay stratégie wax na tamit ci wàllu xam-xam na ñëpp taxaw mystiquement ak tamit li nga xamante moom mooy li ñuy gis léegi ci buzz star yi mariage yeeg yëpp sëñ Moussa yi ñu ngi lay gërëm ñuy joxante rendez-vous euh, semaine prochaine incha allah. ma tëjoo ko beneen bi rek. Mhm. jeune marabu. Mhm. ak nekk jamono ji ci lislaam waaw xam ne dañu fësal seen far lool. Mhm. ci benn parti politique. loolu man sama papa. nee na ma bis bu ma déggee ci politique. ma far dana am lu ma lu ma wax lu ma naqadi. mbaa doo mës a far bañ vaar la. ne ma ne ma lu tax. Hmm. bu fekkee nit diine nga. Hmm. li yàlla may mu ëpp lu may mboolem politicien. waaw day fekk na nga doyloo ko. Hmm. waaye nag bu fekkee léegi ñun ñi nga xam ne ay sëriñ lañu. ñu war a gindi jeunes yi. bàyyi leen seen xel ci yàlla ba lépp luy naqar bu leen seeni buur yoo mën a teg ñu mën koo muñ loolu ñun ñun suñu liggéey la loolu nag leen rek moo ci solution mooy fàttalil xale yi yàlla suñu borom mi subhaanahu wa taala ci ay waxam ak ñu dénkaane yu ñu dégg waaye bu ñu far te gis nga bari na fi ñoo gis fi ñuy wax lamañ wërëy kerek bi leen dig tege loxo nañ doon saraxoo dimbali ma baaxal ma te yàlla tax bokk ak bi leen bàyyi lañ doon wax boo ak policier yi respecté respecté wu kilif diine yu bari loolu moo tax li ngay taxaw di wax ak bu ñu la jàppee li ngay nangu du nekk benn te kaso kenn ñemut ko mm. ku yàlla bind ko ku ñeme mm. amut sa téléphone bi rek boo ko tegoon une heure temps mm. nga soxla ko imagine nga dem kaso ñu tëj ay weer ak ay at en général li ko waral nag mooy wàcc sa ànd ku wàcc sa ànd nag ànd booy fekk fa borom mu toog na ngi dellu ci alxuraan ñun sëriñ ci ak ustaas yi fàttali nit ñi ne yàlla ne na inna la xamaa saabir pamaaga jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Moustapha Dramé xam naa waxtaan bi am na solo xaabaabal nañ sax waaye waxtaan fi mu tolloon la ñuy joxante rendez-vous prochainement di ko jaajëfal bu baax a baax moom Serigne Moustapha Dramé borom yàlla ay kese